صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين دافعوا عن السنة بالألسنة والأسنة موكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خمنا نجتمع لملك الله القنابل النووية السنية ولا بوك القنابل السنية النووية على اوكار المبتدعة الحشوية دينا وقت السلام عليكم مومل ني دا فام بن مبتدع بو خاني نك بما وخي وخي اهل السنه تي بونت بي بنوب نوب دا من دا بوغ توفات دي يوك اي لنت واي نام دون وخي بونديك سا موتاني نخ لام دون وخ بو موس ميغي دون جيما وخ اي سيرينم وخ دونتي وخي بدال waaye bii yoon nag ni mu tàmbalee moom bu ko wéyalee defe naa ne dana doy waar ndax waxut dara ray xam-xam kalaam insha yi lay wax xam nga wax ju bari nag ak xam-xam daa bokkut nit ki bu ko neexee muy sararar yi tuddi téere fii ba ngoon te li muy wax daanaka dara tegewu ci ci yoon wax na nag tomb yu baree bari njuumte yi ci nekk li jéem gi mu doon jéem a tàmbalee raddu ne day ubbi tey diggante bi li muy gàtt gàtt juum na fi njuumte loo xam ne xajut ci mu nekk ay njuumte waaye xam naa dañ ci benn pàcc ndax ragal naa bu buñ buggee ci njuumte yëpp duñ fi jóg damay tàmbali benn pàcc xam naa bu ma demee ba ci kanam ma ñëwaat ci yeneen yi ci def pàcc bi may ci nag mooy bi ma ci gën a soxal muy xadis bi alhamdulilah d'accord na ne wér na daa daanaka wax ji sax mën a naayam foofu ndax li cool yu bari bari surtout ci li ma waxoon dara moom man damaa bëgg a dégg ginnaaw ne eh, ginnaaw nee na day tontoo tontooy mu ne wérut ndax nangam ak nangam waaye ginnaaw moom d'accord na ci ne affaire bu wér na daanaka sax mënoon naa ne yeneen yi mënoon san mënee san nag koo baal ndax leneen li muy wax moom bu fekkee ay waxama defe naa waxi Jibril moom yaakaar naa ne eh, mën naa bañ a yàq yàq bu dee waxee sëriñ bi tam xam nañ leen dégg ngeen gaay bu daay dong li ñuy wax ñun kay moom li ma gënoon a li ma li ma li ma defoon ne ci lay ñëw mooy mooy wér a dig affaire bi ne ma wérul comme man ni may def ne ko affaire yi ngay tuxal nag <coughs> ginnaaw ñëw na ci danañ ci waxee ñetti anam danañ njëkk a wax tuuma ji nga xam tuuma na ko ne tuumaal na ma ko ne dama bàyyi mboolem riwaayaat yi yi nga xam ne ba arab tashbih ñëw ca ma bàyyi leen dem ci benn riwaaya boo xam ne ci benn téere dong la ñëw muy assunanul kubra lil bay xaqi lil bay xaqi loolu mooy benn tomb bi danañ ci ñëw ñaareelu tomb bi mooy wax ne kat walid mii nga xam ne moo ñëw ci riwaaya bi nga xam ne moom wér na fi man walin moom moog ñi nga xam ne asar yi ñuy indi moom dama leen ci daane ñoo bokk walit jarxu bu ne jar nañ jarxu nañ ko kon bu ma nangoo ne bii wér na waruma daane yooyu asar ndax ñu mel ne walit doo nga ca ñaar ñett mun a amir ruuxa kama jaa ni ma ko dégg baaxul ndax méngoowuti li ma waxoon ci sama xasida ga ne wa xamlu amsaalihi ala zawahiriha inda almushabbihi عند المحقق تشبيه وتمثيل كون نيتي تومب يويو كي لا ني نيو تومب نياارل بي نك دا نانتي نيوات نيتي تومب موي في ني واخي تي وليد الوليد دا نان نيكا اندي لي بروم خامي واخ تي موم بن ني تاغ كو ولا ني ديكو توفيق دا دا ملي تي روخ نان دكو بوغ وايفال ولا مو ديكو واخال اي يينن بير نياارل بي تام نيغا خاني دانيو واخني دا فا تاد ليس اك كوي تاد ليس لان موي سب اتي في علم الحديث نخم واجو خم خم xam nga wëli day tadlis ak yooyu sax du woon tem waaye bu dee tadlis après lu ciy tege euh, ñetteel bi mooy euh, ndax tadlis googu ñu ko saxal sax ñu koy waxal sax ndax ndax sax na kon wëlid foofu moom dañ ko ci waxtaane kon ñetti tomb la ñaari tomb bi nag am na yeneen ñett ñetti tomb ba ñeent tomb kon danañ ci ñëw waaye li may njëkk leeral mooy waa daa dugg ci géej goo xam ne daa dugg ci ak océan te mënta feey nit nag bu waxee ci loo xam ne du du fànnam faaw mu indi ay kiimaan ni muy yàqe baat yi noonu lay noonu noonu lay yàqee itam masala yi maanaam li fi masala yi jëm ak fi mu jëm noonu lay wuute euh, noonu ngeen dégg daanaka baat bu baat yu normal li mu koy wax bëriwul da ngay dégg mën ci raddum bi da ngay dégg mën a ala ma xayyaahu qaamab ni taymiyatin xamru wala attabiu am ammiruha wa amlu amsaalihi abo masaar te waa ji tudd noonu abo mustafir la tudd yu mel noonu bari na ci waxam noonu mu yàqi baat yi itam ni la yàqi li ci def bu dee nag bi mu tudd mooy Moustapha dafa bàyyi affaire bi dañ ko nettali ci anam yu bëree bëri mu bàyyi yépp dem tànn bi la bi nga xam ne ci la tashbih ñëw bàyyi yee ca def fay awalan li may njëkk wax mooy li ma la li ma lay njëkk laaj mooy lan moo tax ma war a jël yee bàyyi bii lan xam nga bu waxoon waxi xam tam problème bu du am ndax danaa xam ne lii lii kii lii muy wax kii la ko teg waaye day day waxtaan li mel ni man damaa def lu garaw te li tax mu garaw moom moom tudd ko maanaam waxut dara dara waxut waxut waxut waxi xam-xam ndax bila bi jooju day mudraj bu dee mudraj mudraju isnaad la wala mudraju matn wala ziyadatu siqa la ak lan mooy atib ziyadatu siqa ak lan mooy dalili sax ndax mud ne mudraj la wala ziyadatu siqa la ak bu wuutee yenn riwaaye ban lañ war a tawfiq yooyu yëpp ñëw ji day day jékki-jékki def lii mel ni man damaa def lu garaw te man sax damaa weexu dum xanaa bay xaq yi moom mi ko nekk li te nettul bi ci des moom xanaa moom waaye gaa seetlu naa ne waa ji man du wax lu borom ko xam waxut <laughs> waaye bu indi toor saa kaw dal man man moom daa mel ni maa weexu dum lim ciy wax itam wérut bokk na ci lim wax euh, bay xaq yi ci loolu ci as-sunanul kubra dong la ne te bay xaq yi nettaliwaat na ko feneen ci même madnu bi te indiwut bi at-tashbih jooju loolu it bay xaq yi nettali na ko ci al-asmaa wa sifaat te indi na tashbih jooju kon loolu itam dañ koy dañ dañ lay wax demal xoolaat kayit yi da xaw a juum waaye lan moo tax ma war a bàyyi riwaay boobu dem dem dem ci riwaayatul yi wala ma dem ci riwaayatul laalakaay yi wala ma dem ci riwaaya bu nu Muwatta bàyyi bu bay xaq yi loolu laa bëgg loolu laa bëgg mu leer ndax ba léegi waxut waxi xam-xam kalaam insha yi rek lay ndax ndax des war a tarjiix benn wala buñ ci àggee lan moo tax ñu war a tarjiix wala fekkee bii day saag lan moo tax muy saag loolu waa ji dugg ci nga xam ne waxut lu jar tontu wax la joo xam ne daal maanaa daanaka say boo ma yem ci ndax weesuut waxi gone ci lii ngay xamee ne gars yi li ngay wax sax du comprendre ndax fi bi naan benn laf boobu lu ma faa tudd sax defe naa ne fii ci nazar ndax euh, bi Zahabi tudd ci seer wal mahfuz an Malik mooy euh, nee na amiraha kama jaa euh, bila tafsir defe naa boobu fa ma waxee foofu loolu laa ko waxoon waaye loolu nit la waliwu te loolu it ñëw na ci beneen laf bi ci def nga xam ne moom tuuma yi mooy tuumaal moom ci moom bu déglu bu loo xam ne ne war naa xam ne li muy wax dara bokkut ak li xew waaye boo ko defoon sax nag léegi après ci lan nga may dajee ci xam-xam xanaa du la du waaw laa miñ dong moom di wax di dem nii rek te doo indi lu mën a jàpp ci wàllu ci wàllu ci ci ci buntu xam-xam tayib boobu point jurus sori deuxième point bi ci walit ci boppam walit nag euh, danañ ci waxee ci anam yu bokk danañ ci waxee ci tagg gi ko borom xam yu tagg danañ ci waxee tamit tawfiq gi nga xam ne borom xam-xam taw tawfiq nañ ko danañ ci waxee itam tuumaal gi ñu ko tuumaal tadlis ak lan mooy àtte tadlis ci boppam ci buntu ci buntu ci buntu bii ñu ne maanaam bu ñu nee diw dee tadlis ban lañ koy jox ñetteel bi itam ñeenteel bi it mooy ndax tadlis gi ñu wax ci moom lu sax la wala nag ku ñor gëstukat yi la am na ci sax ñoo xam ne àgg nañ ci taalif ay téere spécial ci moom waaye xam naa ne ñi ko tagg moom bari na ma tàmbalee ci tagg wi ذهبي مو مدن تدنا كان من أوعية العلم كنا بخم خمي كنا ولد بكر أحمد بن حنبل نينا ليس أحد أروى لحديث الشاميين من الوليد ابن مسلم كو دق نت لحديث الشاميوني كو دق نت لوليد أمس عن إسماعيل بن عياش أمنا يتم رواية بوخان ما رأيت في الشاميين أحدا أعقل من الوليد بن مسلم كوكو أبكم خلق آه جسمك واو ابن المديني وحنا وحنا نيتم ان الوليد رجل اهل الشام وعنده علم كثير وحنا نيتم ما رايت بالشاميين مثل الوليد آه وقد أغرب في أحاديث صحيحة وهنا أول يمان وحنا ما رأيت مثل الوليد ابن مسلم مثل الوليد ابن مسلم ñu bari بتقنين سفيان الفارسي لنا كنت أسمع أصحابنا يقولون علم الشام عند إسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم أجلس لك كسنة يبري بري خم خم خم خم ببري لنجو يسجي أجيوني دمه أتفق برفق أحمد بن كامل القاضي لنا وله أصناف كثيرة وفقه حسن كل كل يسجي لبرو خم يسجي waye tam doon ko xamne ku ñu tawfiq la tamit ci wàllug riwaaye xam nga ñaari mbir yu benn léegi dañu tagal la doon ci siqa waaye kii ne ñaari yëpp la bol dañ ko tag ci ci jëmmam waye tam dañ ko tawfiq séeq tamit ci walu riwaaye manam bu nepp de dal ñu war ko mëna jël bu de itam tawfiq tawfiq nañ abu zur'a abu zur'a ad dimashqi neena na أبو مسهر لأن أقول المنمى كان من ثقات أصحابنا وفي رواية من حفاظ أصحابنا لأن أبو مسهر مومن خان موملا فايرو تو تيوخنا نا نا نا ابو مسعر ابو مسهر مومن انا لاجنا نا نا نا ابو زرعه نا لاجنا كو بروم وليد مونيم موم دي في ñi nga xam ne ay si xale ci suñ gaa yi bokk am na riwaay boo ne itam daa wax ne ci fafaase ñi nga xam ne ñuy mokkal lañu sadaqata ibnul fadl nee na xaafidun mutqin nga xam kii xeet tawfiq yi gën a kawel xaafidu mutqin ajli nee na siqa la abi xaatim nee laaj naa sama baay walid من مصالح الحديث ابن عدي نانا أثقات من أهل الشام مثل الوليد ابن مسلم كان يعني يبدو أنك توفي محمد ابن سعد نانا كان ثقة كثير الع... كثير الحديث يبدو أنك توفي ذهبي نانا كان من أوعية العلم ثقة حافظة ألفاظ التوفيق يجنا كذا ابن حبان تبتدنا في ثقة kon kii du ko ko nee daane nga di ko sikkal di jéem a wax ne maanaam moom ak moo moo gaa yi ñi daanee xadis ñoo bokk kii bu dee ci euh, ilmul jarh wa taadil de li nga xam ne moom la jibril tudd buñ ca yemee bis ci daane bu asaram bu fekkee ci lañ yem mbaa boog yeneen bi da koy waral ni ki mu def li ñuy wax alaanaana nga xam ne euh, defut tasreex bi bi samaa maanaam wut maa ko dégg wala mu wax baat buy tegtale loolu loolu sax jibril dégg ko ndax dégg naa mu naa bu nee xaddasana nangam ak nangam mel ni moom mbir yi day feeg waxul xaddasana après waaye waruñu koo nangu loolu lépp nag day wane ne xëy na daal liir fenn ci google mel ni mbir su ko mu randu ko mu jàggi ko ñëw ne ku def mustalax munoo wax loolu mu wax euh, waaye li wër li leer ba leer mooy walit moom euh, du ko ñuy daanee noonu maana ku ñu dëppoo sax ci ne sa xala sa xalal maanaam ñi ñu dëppoo nañ ci ne wali ci waxam sa xala loolu loolu ittifaq moo ci am boo demee ci ibnu xajar al asqalaani dafa wax ne ci hadiyu hadiyu saari hadiyu saari nag mooy muqaddamatu fatxil baari mooy alwalidu ibnu muslim ad dimashqi مشهور متفق على توثيقه في نفسه وإنما عابوا عليه كثرة التدليس والتسوية معنى نانا وليد ابن مسلم الدمشقي كن سيولة سيولة كسيولة يبدو كون ku siiw متفق على توثيقه جبريل متفق على توثيقه ابن حجر العسقلاني كان وقت امام المحدثين ابن حجر العسقلاني في نفسه موثوق من ثقله لان لي فيكل تي موم موي بري غومي داف تدليس اك تسويه تدليس التسويه ني سوال نكو كو موم داي نيت لي سي ثقه ثقه بوبو جيلي سي داعي داعي بوبو جيلي وات بنين ثقه بو نيو نك موم داعي بوبو داكو يروتال لول لي لي مو داف لول تومال نكو دا نسي نيوات سان نك توما جوي سخنام ديف waaye jibril xamul ne jooju tuuma du daane xaddis forcément day am ay sabti yu am mu door koo mën a daane ndax ni muy waxee boo ko déggee day mel ne xamul xamut loolu ndax moom defe na ne fekk waxul xaddasana rek nangam ak nangam waaye boo ko déggee te xamoo bunt bi muy wax da ngay defee ne dañoo borom xam ne dañoo bëgg a wax ne walit fekk newut xaddasana xaddasana rek diisut nangu ak riwaayam te loolu sax di wax ju xoromu ndax xam naa ne am na riwaayam yu yenn borom xam yi saxal te loolu amu ci waye sax borom xam boobee mu tuddu bëggut a wax loolu daa bëgg wax ni feeg waxut luy wane ni dégg na ko rek la hadathana da bok ci ba hadathana da bok ci baari yi wane ne li da ko dégg directement ci ci ci kam yi wax waye manu naa indi benen baat bu hadathana lolu luñ xam la ci mustalah waa demee ci alfiyatu suyuuti yi day wax ne wal murtada qubuluhum wal murtada qubuluhum in sarraxu bilwasli fal aktaru hada saxahu ñi gën a bëri ci borom xam yi ci wàll gi dañoo wax ne bu fekkee mu dallis daa wax ne lii muy wax ma koy di wax na wane na wane gu leer ne lii muy net li ci ki muy wax na ko jëlee directement loolu des koy nangu di wax ne euh, lam net li wéru loolu nag mën naa nekk xaddasana mën naa nekk lu dul xaddasana te bu dee fii itam yenn riwaay sa altu wax nga xam ne moom day wax moom ci boppam moo leen laaj moom sa altu kon loolu baat bu leer naññ la buy wane ne lii moom da koo dégg loolu bunt la boo xam ne ak tasreexu bi lañ koy wax maanaam mu indi lu lu leer naññ luy wane ne lii da koo dégg lu ci mel ne xaddasanaak axbaranaak yu ni demee kon fii loolu amu fa place ndax fii wane na fi ne moom lii muy wax da koo dégg moom moom nag tadlisu taswiye lañ ko gën a tuumaal te ñooñu ci ci quatrième degré bi lañ nekk ci mu dallisoona yi xam nga borom xam ne dañ leen séddale xam naa jibril moom xam naa boo demee xamul loolu boo demee ci jaamiu tahsil ci ahkaamil marasil da ngay gis ne xaawis bi mi ngi koy alwalid ibn muslim mi mi ngi ko boole ci quatrième bi moo tax mu naa wa raabiuha man ittafaqaw ورابعها من اتفقوا على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لغلبة تدليسهم وكثرته عن الضعفاء والمجهولين كابن إسحاق وبقية ديدم بني والولي ابن مسلم هل مام دكو بوالي كثير ما نيغا سينو سينو رواي ديس كو نانغو فك وخو ني واخ غولير وني وني غولير ناني ني لي ديغ lu mel ni sa alkoog yooyu nag bokk na ci li ko mën a tegtale moom ne ne lii li mu wax da koo dégg ndax moom dañ daa laaj ñoom kon loolu moom amu amu fi place daanaka jërtoon jërtoon wax daal maanaam day mel ne xeeti bari wax la di ko di ko di ko di ko dugal fii ndax mudallis kenn waxuloon dañuy sànni rewaayam dañ la wax kay ne ba dañu koo nangu ay sart la am lay am lool loolu yi lañ wax ñu ñëw ñu ñëw nag ci ñu ñu ñu ñu ba modèle bu dee modèle bi mu doon kenn waxut ne ñu sànni riwaayam ñu ñëw nag ci ndax sax lii ñu koy tuumal naa day tadlis ndax wér na am déet loolu sax beneen masala la moom itam waaye ndax loolu ñu tuumal Walid ibnu Muslim ànd ak ne sax nag bu amoon itam fii ñu toll moom man laa soxla danaa ko am mooy riwaaya boo xam ne as-salaf saalih nee nañ amir ruwaha kama jaat bila tafsir wala bila kayfiyatin te man bu bu ci ne arrangé ne ma man nga xam ne jibril moom li muy a daaj sax moom bu daaj ko woon fi ne man daanaka <laughs> benn la fi man waaye ndax sax tadlis manis na ko tuumaal walid ibnu muslim loolu ab laaj la ak ndax yiñ ko tuumaal ne day tadlis ndax lu wér la am na ngeen kilifa goo xam ne ñu ngi koy tuddee Abu Jaabir al Ansaari taalif na téere boo xam ne quatre cent quatre cent pages yi teg teg na jàngat na dem na ci kutubul jaat fa taadil texte yi nga xam ne dañ ciy tuumaal alwaridul muslim mu teg ko na euh, euh, def ci dirasaat yu am solo waaye moom nam ko génnee mooy yiñ koy tuumaal wéru lu ci ne nag indi na ci firndéewam xam naa man sama bopp nag damaa xam ne boo ci duggoon du jeex ndax fi ne yii waa ji tudd rek boo jëloon benn asar dong ak ñàkk wér ak la tax wérut da nga guddal waxtaan wi lool waaye ku ku kuy gëstu boo ci demee da nga xam ne li may wax dëgg la résultat yi nga xam ne àgg na ci ci tënk mooy anna al walid ibnu muslimin rahimahullahu lam yakun mudallisan wa anna man sabata anhum ittihamuhu bi dalika shubbiha lahum walid ibnu muslim doon sax mu dalli ñi ko tuumal loolu itam xëy na dañ leen a lëntalal rek maanaam dañ koo fokk defe ne lii firndeel la ji wane ne day lënt waaye doon te it lii muy wax nag moom indi ci ay lay moom ci biir téere bi nataay ji bi wax ci nataay ji dama koy wax rek ngir lu mel noonu moom méngoo waxtaan bu mel ni bi may def ثانيها أن الأحاديث التي ضعفت بسبب تدليس الوليد وهي كثيرة taudu ila asliha min asiha xadis yi nga xam ne dañoo wax ne wérut ndax eh, walit muslim da caane day delluwaat rek ci seen cosaan te loolu ak wér li cosaan lañ amoon ci ak wér di cay delluwaat saalisaha an al imam al awzaa'i te boo dégg ngeen waa ji naa awzaa'i ci boppam bu ca nettalee nangam ak nangam te kii riwaaya bi da koo nettali ci al awzaa'i ànd ak ne sax nettali ko ci awzaa'i donc da koo nettali ci awzaa'i nettali ko ci laysul nettali ko indi ko waaye waaji waaye waaji bu ginnaaw ku dubul jarxu taadil gis na ci ñuy wax ne bu ko nettalee ci awsaa yi eh, du wér rek moom mu bëgg a dëgg foofu ànd ak ne itam bu bu xalaatul kutubul jarx wa taadil baax a baax dana gis itam ñoo xam ne dañuy tawfiq walit ci waa saam sa awsaa yi ci la bokk nga xam ne moom maa dañ ko jay lool waaye dana ñukk foofa loola xam naa da ko gisut xëy na sopp jenn wax di ko wax ànd ak ne itam awzaa'i yi ci boppam sax am na ci ñoo xam ne bu dee bu dee bu dee walit jëfewuñ ko koo xam ne bu nettalee ci moom daif la yooyu yëpp sawaay gisu ko xam na waaye baaxis bi bokk na ci nasaay yi yim am nee na saalisuha an al imam al awzaa'iya rahimahullah huwa alladi kaana yudallisu fi l asanidi lal walit awzaa'i bi ci boppam xam nga mudallis lañu am nañu ko ñu ko ram ci tadlis waaye tadlis bi ñu koy jiiñ ca dëgg-dëgg ca yooya waa ji moom lim ci gëstu yim ci def te indi cay firnde nee na tadlis ba ñoom ci aw saaxi la woon waaye du woon walit ñeenteel bi itam alxeetatu min ahadith al awsaaci al muancanati fi l mustaqbal kon wane na ne kon xadis yi nga xam ne ñu ngi koy nettali ci awsaaci te mu ñëwee an nangam an nangam yooyu defe naa waris na caa teey kon yi bokk na ci yi nga xam ne waa ji gëstu bi làmboo na ko xam naa ko dem ci gëstu bi ma la ma la wax téere bi ma la wax da nga gis lu yaatoo yaatu loo xam ne da nga ci jëlee yeneen xalaat yu bokkute na nga foogewoon yu bari daal ci yiñ koy tuumal ci tadlis moom soxu kon moom xam naa tax jéem ko tey tey sax mbir yi du di wax na ko mbir yi xam nga lu moom ndax diw nam nam ko waxee na la demee sa bu dee ci eh, xam-xamu xadis sax dañuy wax ne buñ jar keneen koo xam ne borom beneen waroon xam ñëw dindi jarxu ba nga xam ne leeral la tax ñu jarxu ko boole boole indi firnde yi wane ne jarxu ba saxut jarxu ba day daal kon laaj bi sax mooy ndax jarxu alwalit ci boppam ndax ndax ndax lu sax la. day mel ni itam waa ji xamul sax lan mooy tadlis da ma dégg mën ci ay ay fenkat te tadlis sax normalement du forcément rek ci fenkat ngay jël mën ngaa jël koo xam ne dañ ko jarxoo du du du kasib ci boppam. da ngay dégg bu bu bu zahabi ne tad tadlisu radi wala radi u tadlis mu naat day def tadlis bu ndaw te radi u wax dëgg yàlla jibril ci arab lu mu ndaw man jaaxal na ma lu ñaaw lay teg maanaam ni mu koy ni muy daa ñaaw la zahabi bëgg a wax da ngay dégg muy wax yu xoromoo xoromoo yoo xam ne yow da ngay da ngay mujj lu tax muy ci li tax muy wax ci bunt bii mu ne maanaam lan lan moo ko may fitu dugg ci lii ne maanaa ma ma maanaa lu lu lu lu lu xoromoo xoromu la ànd ak ne man yi nga may tuumaal da ngay indi firnde xam nga mbir yi lu jékki-jékki rek ne Moustapha nii lay def Moustapha bu àggee ci borom xam bu ko mënee taddaif taddaif ko bu ko bu ca mënut dara mu tuumaal ko ndax Moustapha wax na loo xam ne da ko da ko wax rek bàyyi wala lu mu wax lu ne daa indi am marja wala déet looloo doon laaj bi man sama man kalaama ilmi laa xam waxi xam-xam waaye ji ji mbir yoo xam ne man amut euh, euh, wax gi nga wax ne itam li ma indi woon indiwu euh, dindiwu ci dara loolu it wérul li nga indi gisoo gisoo ci lu ma dindiwu asar yi nga indi yëpp ci asalaf saalih daane asalaf saalih asar yi nga indi ci wante bi daane naa ko yi nga doon tegtaloo wane naa ne doyutul tegtal yow kon loo dese yow dese woo dara de <laughs> yow ba Moussa bàyyilul ab aaya bàyyi bàyyilul ab xadis bàyyilul asar boo askan asalaf saalih leen la la bàyyee mooy waxi mubtadia yi te loolu moom kenn ñaanewul ko ak yenn borom xam yoo xam ne te te loolu sax bëriwul xam naa kenn nga ci mën a am ba ñaar ci lañ bokk waaye masala moom dañ caa wuteeg ahlu euh, wax loo xam ne duñ ko wax te kenn ki sax mu ni amee firnde yu wane ne wax na ko moom xanaa kenn ki la wax ne moo ko wax daa daanaka kenn ci ahlu sunna euh, ku a wax loolu koo ne mënees ko génn ci ahlu sunna te wax na lu lu lu lu mel te tey sax diisut wax ne moom sax diisut wax ne wax ne li nga wax ndax yi ngeen gëm-gëmu ko moom day daqal yàlla aw yaram ak ak tuxoog ak yëngutoog ak yu bari dafay dàq waaw kooku sax dafa wóolee nag yéen te te bu bu doon am kenn lay doon ñi ci des mooy mubtadi'a yi te ñooñu xamoon nañ leen kon <laughs> man ku ku ma di lu ma dindiwut ci li nga wax amut li li nga fi tegoon lépp kii effacé naa ko te man nag li ma teg moom effacé ko moom ku ko bëgg a def des dese nga ma xëy moom loolu loolu maa la ko wax li ma fi li ma fi teg ku ko bëgg a din dese nga ma xëy ah léegi nag waa ji waxaat lu xoromoo xorom mu ne amir ruwaxa kama jaa at nun amuñu ci problème waaw loolu léeg-léeg leen Ibnul Jawzi doon raddo fekk ibaara boo xam ne la muy tegtale leer na tafwid gu leer nañ ñi le te yéen defu leen tafwid yéen da ngeen wax ne naxmaduha ala zahiriha ngeen bëgg koo laye boole tuumaal ci asalafu saalax tey nag jibril mën la ci tuumaal ndax xam naa day ñemewut borom xam yi ànd ak ne moo la gën a xam ne li ma wax lu ma mas a wax lu ne rek indi naa borom xam bu ko wax waaye xam naa ñemewut xurtu bi xurtu bi moom waxal na ne ku ne naxmaluha ala ala zahir luga loolu madhabul mushabbiha boo demee ci aayatul israa ci suuratul A'raaf ci suuratul Baqara boo demoon tamit ci xadiisu nuzul li ko ibnu xajar di saraa ci Fathul Baari nee na ñi wax ne naxmiluha ala zaahir ñooñu ñooy ñooy mushabbiha yi keneen noonu keneen noonu ñu bare bari ci borom xam wax nañ ko waaye man nag maa weexu dungu man man bu ñëmewut borom xam man la ñuy song kay waxal defuma dara dama ne net dong de laa def defuma leneen kon nag loolu ma ne wa xamlu amsaalihi ala zawahiriha inda al muhaqiqi tashbihun wa tamthilu man maa ko mujj wax loolu ahlu sunna gi yëpp moom la jox ahlu sunna duñu wax ne naxmiluha ala zahiriha loolu waxi mubtadiin qadiman wa hadisan nag te képp koo xam ne sa buntu sab gëstu yaatu na ci buntu bii boo gëstoo maa al insaaf da nga xam ne borom xam ne ahlu sunna yi ñi ci bëree bëri wax na lii ma wax ñi may wax ay mubtadaa du ma maa maa jékki-jékki ne leen ni mubtadaa ahlu sunna jëm ñoo leen tudde mubtadaa nag ngir muñ topp ngir mubtadaa la du sax sax lu tàmbali lu tàmbali tey ngirum du la du ay caaxaan léegi nag xulóog Moustapha nag daa nag xulóog ahlu sunna la euh, naa ñetteelu bi mooy amir ruuxa kama jibril nee na hmm, noonu la ñuy def moom romb ko ni mu ñëwee la koy firee te xam naa amir ruuxa mu wax dëgg yàlla baat bi nag ci wàllu jibril eh, du romb ko nag moom firiwul romb ko da koy rombale ko wala tàyyi ko mu jàll ni mu ñëwee loolu nag defe naa ki koy def du wax li ci zahir bi la ne ndax yaa ngi ciy tàmbali dugg moom yow bàyyiwoo ko mu jàll nim ñëwee ne képp koo xam ne ngaa defe ne mooy istiqrar mbaa julus yow yëgoo li xew ndax yow yow baat la yow imaginé ci sam xel daal ne noonu la ñëwee loolu weesu dégg-dégg nitu biddaa waaye yoon aaya ba néew ci nam ñëwee moom boo ko ba dee bàyyi mu jàll nga naan istawaar rek bàyyi mu wéy te bañ caa dugg gannaaw ci tàmbali dugg nag nga xam ne asar bi ngay nett li ci wax yow da lay daale bi wax naa moo wér bi laa tafsirin yow yaa ngi ko firi naa maanaahul huwa al istiqraar nga xam ne yaa dañoo wax ne bi laa li gën a xorob ci waxaab yi mooy day indi texte boo xam ne da koy daane moom mu di ko tegtaloo bul firi mu firi daan léegi ak kawe lay teg kawe jëm istiqraar lay teg ba noppi nag ne man am ma ci problème ndax dañoo wax ne bul firig te Moustapha da koo firig Moustapha nee na waxamlu waxamlu amsaalihi ala ala zawahiriha te loolu Moustapha nangam e eh waay doom ndaw est-ce que ku ne teg nangam ci zahir bi def nga tasbih est-ce que wax loolu daa firi li ma gën a yëm mooy Jibril waxuma la sax di tontu li may wax waaye sax mënu koo maanaam xam li ma wax yëpp jibril mënut loolu loolu nag du Moustapha moo ko wax Qurtubi moo ko wax ak ñu bari ci borom xam yi ñoo ne man xamalahu ala zahiri fa huwa mushabbih loolu bu fekkee yaa topp sama silsila in yàgg naa ci indi texte léegi nag ma ñëw ci maana euh, amir ruha kama jaat xanaa ñii moom yaakaar naa lu jibril du du wax ne xamuñu dara xanaa ñi may waaju tudd wala ay murtadaa lañ wala kay di mel noonu defe na foogu ma ne jibril lay leen ko wax xanaa xam nga man nag xulóog man li ci neex mooy boo koy def borom ko xam borom ko xam yi ngay xulool ndax dama ànd ak ahlu sunna moo yëpp rek mooy ànd ak moo tax dama bari problème loolu te soof la dama damay wax waxi ahlu sunna te ahlu sunna ci bi daay dañoo juum loolooy jafe-jafe bi xam naa daal weddi samay wax moom manis na ko waaye boo ko weddee rek weddi waxi borom xam borom xam yi ahlu sunna loolu daal moom moom lay àndal moom man mi waxut ko rek man la ñuy féetalee toor bi léegi nag amir rooxa kama jaa lu muy teg ibnul jawzi nee na wa maana al imraari adamul ilmi bil muraad rombale comme ni mu ñëwee mooy nga bañ a xam la muy teg waaye boo duggee ci xam ko rek rombale woo yow ko yaa ngi firi léegi ñoom yow nee nañ la bilaa tafsir ngay firi te jibril nee na bi laa tax fiir wér na dañuy ngay firi ba noppi naa man amir wax ak ma jaar bi laa jibril di firi booleeg ne léegi man mm, li ngay def yaa xorom eh, xanaa naaw yi moom borom xam la xam naa Mustafa borom xam-xam naaw yi moom borom xam-xam la naaw yi nee na wa zahaba zuhri wa zahaba zuhri إلى أن هذا الحديث وما أشبهه يؤمن بها ويمر, كما ويمر على ما جاءت ولا يخاض في معناها وأنا لا نعلم معناها ويمر كما جاءت معنى لن يدف أمرها كما جاءت ويقول لم يشكي وأن لا نعلم معناها نندون خم معنا كن لوري بني خم معنا وقت كوحتا خوي لوري أمر أمرها kama jaa charhu nawawi ala muslim xaajum ñaareel xatum ñeent fukk ak ñaar loolu defe naa leer na eh, kon lii mooy amir roha kama jaa albaxawi tamit nee na asifatul mutashabiha waaye nag lam ca teg mooy amir roha kama jaa nee asalafu saalih ku ci mel ni Awzaa'i ak Lays ibnu Saad ak Sufyaan ibnu Uyayna ak Abdullahi al Mubaarak ak Abdullahi ibnu Mubaarak ak ñu dul ñoom ci borom xam ahlu sunna aay yi lañ ci waxoon mooy amruha kama jaat te nee na aay yi ay mutashabiha lañ tashabiha lañ wuuteeg li wahaabi yi wax kon lii ay mutashabihaat la yoo xam ne dañ koy rombale comme ni mu ñëwee waaye di si dugg ci maanaam xanaa Qurtubi moom moom itam borom xam la moom xanaa Mustafa bu borom xam la moom Qurtubi moom doon borom xam-xam القرطبي وقد عرف ان مذهب السلف ترك التعرض لتاويلاتها مع مع قطعهم باستحاله ظوافرها فيقولون امروها كما جاءت كن امروها كما جاءت لك موي القطع باستحاله الظواهر وخنا ظاهر بموم بيمتك كوم لولو منتا نيك دا جوم كي امروها كما جاءت موي كي واخ لو لي القرطبي مين كو واخ سي سيرم بو ني واخ تدكار bu la neexee tamit tuxal na ko ci abul abbas sëriñam ci tafsiram bi euh, xaajum ñeenteel bi xatum euh, fukk ak ñeent gëj naa koo jàng waaye xam naa ne soriwut defe naa ci ali ali amran la daanaa ko gis nag waaye xam naa ko ci xool du sori foofu Shaatibi bi moom xanaa moom itam nangu nañ ne borom xam-xam la moom usul bu mag la moom yéen waxaay bi sax léeg-léeg ngeen dellu ci moom léeg-léeg nee na wa عن مالك والأوزاعي وسفيان وسفيان بن سعيد وسفيان بن عيينة ومعمر بن راشد في الأحاديث في الصفات أنهم قالوا أمروها كما جاء أنه حديث النزول ولا أنه نحو حديث التنزل وخلق آدم على صورته وشبههما saatu bi mi nga موم ne moom ku ne xam na ne du askan asalafu saalih lu taxul gis nga te fii mu wax rek tegtale na ne kur xam maanaam yi mooy wax am roox ak ma jaat ndax nee na wa jamiu ma qaaluuhu mustamaddun min maana qawlillahi taala kon lim ci teg dana ko leeral ndax da cee teg ne summa qaala wa raasixuuna fi l ilmi yaquluuna amanna nga xam ne waqf fi moom mi mi ngi ko def ci wa maa yaalamu tawilahu illa allah nga xam ne yii moom ay mutashabihaat la ko def sifaat sifaat yooyu booleeg bokk ci ñi wax ne suñu borom doo nga xam seen maana kon ginnaaw bi mu dolli ci ne fa inna kulla ma lam yajri ala al muctaadi fi lfahmi mutashaabihun nee na lépp loo xam ne nañ baaxoo déggee demewut noona loola day daal di nekk mutashaabih wala ma si al ictisaam xaasu bi wax na loolu wax na loolu lii nag dama ci jëlee misaal waaye borom xam yi firee amir roxa kama jaat nii kenn xamul nuñ toll bu la neexee nga dem ci Muhammad سالم السفاريني في لوامع الأنوار البهية هي جسنا أي متشابه هذا اللي يندف بولغنا السلف الصالح دنيا وحنا أمر كما جاء نحن كوي وحنا سفاري متشابه لو ولا كوي وحنا خميس المعنى مويتك تلو أمر كما جاء ودمت لا مع الأن أنوار البهية رحنا فلول كن آه، درمت أقابل الثقة سبتنانا وجمهور أهل السنة منهم السلف وأهل الحديث على الإيمان بها وتفويض معناها المراد منها إلى الله نيجينا برجع أهل السنة تسلف أهل الحديث لن بوك dañuy gëm yu mel nii booleeg delloo maanaam suñu borom waaye duñ ko jéem a xam duñu wax ne iqraar la duñu wax ne zaahir bi mooy nangam euh, mu indi euh, Maalik ak Awzaa'i ak Sufyaan ne ci loolu lañ newoon daan ginnaaw bi mu teg ci ne yaquluuna fi haadihi al-aayati wa amsaaliha amirruha kama jaat kon amirruha kama jaat mooy kii kii tafawwadul maana ilallaah ki nga xam ne day wax ne du xam maanaam xanaa moom borom aqaawilu fiqaat moom borom ko xam la moom xanaa <laughs> Ah, ah, <laughs> <laughs> bi jëw si romb romboon naa ko lé romboon naa ko léegi moo tax jëw si wax naa عجبت من أقوام يدعون العلم ويميلون إلى التشبيه بحملهم الأحاديث على ظواهرها فلو أنهم أمروها كما جاءت سلموا nga gis ne kon wa xamlu amsaaliha ala zawahiriha ji Moustapha ji wax ji Moustapha waxoon moom la Ibnu Jawzi wax fii rek nee na yéem na ñun ñoo xam dañuy woote wooyee ne dañoo am xam-xam daal di jéng ci loolu suñu borom ak mbindeef ko defee nga ne mu ne bi xamlihimul ahadis ñu teg ko ci zahir yi mu ne walaw annahum amarruha kama na ñoo dañoo def kama jaa loolu da wax al imrar kama salimu kon danañ mucc nga ne ko waaw ki nga xam ne moom amarruha kama jaa lay def nu muy mel mu ne إنهم أمروها ما جاء ممن لأن من أمر ما جاء ومر من غير اعتراض ولا تعرض فما قال شيئا لا له ولا عليه وهن نمي ورنون كباي مجل وهو دار غير لو يو وهو دار يو أم أم أم يعني اللي كي يأكل جام ولا لي سكوا ولا دار ما هي وهو كدار يو واي وح وح بمني أغلى لي ليه تكي بده فول بدي كوني أمروها كما جاء لا لا لا حرام ولا لو سمعنا وحنا إنه ما هو سير القاطر خاطر man damaa weexu dong moo tax bu la neexee nga jël taaju diin sukki moom itam am ruha kama jaar li firiwaat na comme nii ma ko waxee ci tabaqaatu shafiiyya xaaju fukk ak juróom-ñeent bi neexee nga dem ci tafsiru tafsiru bi xaajum ñaareel bi 129 ku la neex seeboo nga dem nga dem fa moom ñëpp lii lañ lay wax abroha sama dia taxwidul maana lay tekki bañ a xam maanaam te loolu nag loolu mazhab ashari la noonu ashari yi nangu nan loolu <coughs> bu la neexee nga dem ci tafsirul mazhari yii yëpp boo demee ci xaaju euh, xatum deux cent quarante neuf moom itam noonu la ko amroha kenn ku nekk indi nga amroha euh, ko nii ma ko firee wax ne moom la asalafu saleh wax kon jibril ca dëgg-dëgg borom xam yi ngay xuloo waaye xuloo xuloo ak man amiru ak ma jaan moom man firiwuma ko ahlu nag bu fekkee yow daanaka jàng baat bi doo nga mënoo ko nga ne amiroo ngay wax boole li may wax sax man yow xamoo ko wax dëgg yàlla man du sama tooñ kon xam nag waa moom defe naa léegi kon bu le ko kenn waxati dara daa mel ni kon ci noonu la bokk ginnaaw amir roxa samajaat bi la tafsir moom wér na wér na même mam baat tos bi daal la ci bañ waaye moom bu ci loolu amul rek moom loolu wér na loolu amul problème léegi mën na noo joxante loxo yow mu xawwér nga yow ashar yi nga léegi noo noo ànd noo noo no bu la bu la kenn dara dañ lay tooñ waaye yow sunni nga naa mi ruuxa kama jaat bi la def si salafa ko wax léegi léegi ma noo yow bokk wax bokki wax xam naa bu ma dil saare ñëwaat ci góoram gi ibnu taymiya moom itam ci tomb yi la bokkoon